pour xale yi léegi ñoom bu ñu màggee dañu war a am loolu par force. te daa war am foo am foo war a jaar. waaw kay comprendre nga. lañu war a wane. jigéen ñi dawal ay oto. dëgg la kenn ku nekk li nga war a lekk li nga war a am danga koy danga nga koy am. Mhm. mais dëgg jigéen ñi dawal ay oto di sañse tëdd si ay kër yu baax xale yi bu ñu gisee loolu pour ñoom loolu rek loolu dëgg la. Mhm. te dafa am foo war a jaar. Mhm. day tax suñu rakk yi di def lu ñu warul def. comprendre nga. série yi daal vraiment neex na trop nag am na nag ñu neex. mais am na yoo xam ne man du ma seetaan d'accord série bi yëpp boo ko jaayee jëndul oto. am nga ci plein droit en tout cas daal danañ ñëwaat ci kaw boobu ñu mu gën a yaatoo. xool lan la joteek ñooñu ñu mën cee dugg. Ah, waaw ñooñu seeni wax jarul wax. li ñu ci wax nii rek am na solo dañuy jàll ci keneen muy Bouba Ndour euh, procès moom ak Bril mbay Jibril mbay ñu naan ko Bril Fight Fo ak Ndiaga Ndour ginnaaw ba leen Bril tuumaalee ni dañoo jël quelques secondes ci benn morsoom dugal ko ci seen benn série bu ñu naan Taay Fiil ginnaaw ba mu ko ba mu leen defalee série bu ñu naan Taay Fiil Taay Fiil xaw ma Taay Fiil mooy Taay Fiil ñuy toppi rek waaw ñoom Mbour Ndour ñoo ko ñoo ko ñoo ko bind ñoo moom série boobu je crois que seen kii boobu lañ koy dawalee mais ginnaaw ba ñu laalee son wu Bril Bril dafa dem yóbbu leen ci yoon ginnaaw ba mu leen yóbboo ci yoon nag da doon demandé ñu jox ko cent million Hmm? mais de bi bi bi tribunal àttee ba pare tribunal correctionnel yaakaar naa moo doon àtte yëf yi bi mu leen àttee dóor nañu Bouba Ndour trois mois de prison mais avec sursis maanaam du ko tëdd alamaan ko un million yu mu war a hmm. jox Jibril moom mi Jibril Fayet foo hmm. Ndiaga kenn at kenn def ko dara moom dañ koo bàyyi mais li Bouba wax nee na bi ñu demee ba war a laal son wu Bril bi chef de production la wax na ko wool Bril nga ne ko soxla nañu son bi parce que sama monteur moo ni soxla nañ ko ci élément bi wala soxla nañ ko fii mhm. bi ñu woowee biir la loolu la loolu la buuba wax Bril euh, nag nee na mosuñu ko woo est-ce que kooku woon na Bril tamit aussi mais ci ci ci niñ ko ni ko gars yi génne information ci ni buuba waxee ci kanamu tribunal bi dañ ne mhm. buuba mu ngi taxaw waa ji woo Bril léegi Bril tam buuba taxaw na chef production bi woo Bril ci kanamam Mm. léegi Bril tam weddi na nee na man kenn woowu moo tax mu porté leen plainte mais terewul tribunal àtte na quand même. ah loolu doy na waar te àjji <laughs> ay mbër lañ ne. mais ah, artiste bu bu mel ni Bril tamit est-ce que est-ce que yooyu itam warul woon dem rek waxtaan ak ak ñoom. waaw loolu moo gënoon loolu moo gënoon rafet parce que mënoon nañ bañ a yegg ba tribunal parce que ëllëg. ëllëg waaw dafa am soxla mën na am. Mm-hmm. waaw euh, il faut ñuy bàyyi xel yenn yi tamit il faut ñu ba suuraale ëllëg il faut ñuy suuraale ëllëg moom doy na waar trop. même bu fekkente ni sax nit ki buy bind waayam comme Jimbori yow bindkat nga tey euh, yéen li ngeen daan jàmbat li ci ëpp bokk na ci piraterie yi da daan sëgg ci sa benn kii ci sa benn scénario nekk ci liggéey ci génn sa bopp bi yépp comme li ngay wax sànq di nga ñàkk dépense muñ ko euh, sa mbokk dina feebar doo ko mën a faj nga am soxla doo ko mën a faj. est-ce que loolu moo tax tamit Bril ne comme sama œuvre la dama cee sonn def ci ay million du ma nangoo bàyyi noonu mu jàll mais est li léegi wax amu ci solo. sóoraale wu non mais xam nga millier art boo nee art. Hmm. art dafa ëmb lu bari waaw mi ngi mel ni nga ni waa kër gi. Hmm. parce que buuba waa kër gi la. njaga waa kër gi la. Hmm. Bril waa kër gi la. yaa ngi dégg parce que xam nga lu tax. xam nga lu tax mu mu moom mu mën a porter plainte njaa Bouba Ndour mhm. parce que Bouba dafa yëngu ci milieu bi mais euh, naka la tudd euh, ma ma wax la que que liggéeyul ci loola mhm. plainte wuñ ko lu dëgg te aar dafa nekk lu xam ni euh, da mun naa bañ a soxla Ndeye Gueye tey aar mooy dem ba ne ma demal woowi Ndeye Gueye xanaa am loo koo gis gisoon yow nee nga monteur bi moo woo buuba ni ko diw lañ soxla euh, nangamam ci film bi. Mm-hmm. xam nga lu tax. Ah. film boo ko dee bind. film bi mooy woo ay mbokkam mooy woo ay waykatam bu dee film bu normal mooy woo casting mooy woo ñi koy jouer. am na wala amul waaw déglu nag yaa ngi dégg. Mm-hmm. comprendre ngi ni mu la. Mm-hmm. kon léegi bu fekkante ne Bouba Ndour dafa laal benn somme. mu woo buuba ñu waxtaane ko moo gën a rafet pour ñu dem tribunal waaw parce que xam nga lu mu dee dee dee moom seen yooyu ñuy def presse aar xaw ma mm-hmm. te buuba nduur yore ko mm-hmm. ah foofu noonu ja wiiri jaari ndaari la de wiiri wiiri jaari ndaari la de yaa ngi dégg mm-hmm. te léegi boo tëjee bunt boobu tëjaat yeneen bunt yi bu yàggee foo jëm laa lay laaj waxal waxal non ji waxuñu loolu. yaa ngi dégg waxuñu fi loolu. yaa ngi dégg yow xàmpal góomu naar bu xasoo xunnu ma sonal waay yaa ngi dégg. waaw demal fële déglu ma wax la dama ne. eh kii day buuree quoi. quelques moo ñu dese waaw déglu ma wax la dama ne. buuba li mu woo li mu woo buuba noonu ñu si am problème. Mm. munoon nañ ko waxtaanee. parce que gisoo aar ñun ñi dañuy soxlante man mi léeg leen ma jóge fi dem ba kees dem GIE si ñoom daam mm-hmm. seen léeg-léeg dañ ngay gis koo war te gis chaque jour ngeen di jaxasoo àdduna day dox te ba pare yàlla du la waneel du la wan nit mukk ci hasard yàlla nee na moom du wane la ci hasard ba ci lépp nag ba pare kon olof waxam dañ na parce que dafa ne ñu bokk teen ñooy laxasoo buum ak ah, xam naa ki ko def ci olof tamit dafa wax ni yonent daf ne ke leen kenn ku nekk la ngay def boo xewlee ñan koy defandool ñoom ñooy ñëw mm-hmm. waaw mais tamit dafa ne mbooloo boo xam ne nii dañuy ànd di dem te nekkul mbooloom yàlla mbooloo poson la mm-hmm. boroom xam-xam yi nag bi ñu ñëwee dañ ne mbooloo mu xam ne dañoo ànd te bokk fi ñu jëm ñoom ñëpp bokk benn xel mbooloo yërmande la yaa ngi dégg mais dem waxtaan ak buuba buuba yëkkati dara jox la moo gën coow li quoi di yëkkati benn coow boo xam ne bu ëllëgee yow di nga soxla buuba buuba tamit mun na laa soxla. Mm-hmm. am na wala amul. Mm-hmm. te yow yaay gën a soxla buuba wax dëgg yàlla kon coow lii man pour man warul woon mën a nekk ñun dañ daan jàpp ñu xam ne bokkuñu ci aar bëgg a dundee aar yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais sa moroomu artiste ak producteur réalisateur dalay woo téléphone léegi ne la jëlal taxi nga jël taxi dem. waxal. noonu. waaw su su arrangeur musique koo xam ne nii moom musique bu waaye def wan ko ko waxal rek. jàmbaar am na ci xam-xam mais am na ci xam-xam mais terewul waroon nañ ko mën a jàmm. non mais kay grand frère am la lu xam nga loo fi gis lu mag lu lu magam lu ndawam ah loo fi gis lu magam amoon na fi lu ndawam. Mm-hmm. mais boo nekkee lu ndaw respecté woo ñi nga re ñi ñi nga war a remplacer. nan lay demee aar tamit barke da cee am.